fii ci Elvision Média ñu ciy waxtaane mbindu mag ñi ak li nga xam ne moom mooy jaar-jaaru mag ñi fii ci Sénégal Elvision Média nag indi émission boobu waaye bàyyiwuñu xaadir bàyyiwuñu tiijaan bàyyiwuñu laayeen bàyyiwuñu tiijaan bàyyiwuñu kenn koo xam képp koo xam ne rek yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay dalal ci émission bi di wax képp koo xam ni rek bëgg nga ñu dalal ci émission bi da ngay woote ci numéro bii 77 941 26 52 77 941 26 52 kon mbokk yi gaw Abonedi gaaw abonné El Vision